فجللاي مسكني تبابات misrasmia bi xayri ma nabaat ñu ngi am mbégte dellu si waat seen jotaay si Ndindy Actu yi ànd si ak sëriñ Mourtala Mbacke mu Serigne Abdou Fatah Mbacke Falilou si émission bii nag ñu fas seeni waxtaan ak moom tey jii si tubaa sa kanam mi nga xamante ni moo yor lépp lu aju si wàllub euh, social dimbalante beeg yooyu sëñ bi ñu ngi lay jox euh, kàddu gi di lay nuyu. bisimilah alhamdulilah. salawatullahi wasalaamu ala rasulihi wa alihi wa sahbihi wa xadimi wajal kalaami rasida wa murshida wa fikrati nawir wa xarbi arshida asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñu ngi siyaare suñu kilifa yëpp di ci jiital Cheikh Mamadul Muntaxa di ñaan suñu borom guddal aw fanam lool te wéral ko ba mu àggale mbooleem naal yi amee yëpp te ñu ànd ko moom waaye mu yàggal fi mbooleem suñu kilifa yëpp di siyaara bu baax te nuyu sama mbokki taalibe yi te di leen ak ci weeru tedd wi ñu nekk tey ñaan sunu borom nangul ñu sunuy jaamu tey ñaan itam tey masawu ci jafe-jafe yi ak xat yi nga xam ne nii moo tege ci adduna bépp waaye rawat ni ci e, bitim réew ñu ngi koy wu ñëpp te ñaan sunu borom ci barkeb Cheikh Ahmadou Khadim sunu borom woyofal lépp sëñ bi li naan hasard amul euh, Touba Ca Kanam bi ngeen koy euh, sos mel na ni situation yi mel ni bokkoon na si ndax mbas mi dugg na si biir réew mi laal population bi ñu naan sax am na ay euh, impact maanaam ay jeexintal si lenn si population bi si wàllu dund ndax couvre fa beeg état d'urgence bi te jii nag dund ñu ko soxla lu bare la waaye sans état sans mairie Touba Ca Kanam dafa njëkk jóg am benn investissement humain bu am solo si wàllu dund. wala tamit euh, matériel hygiénique wala produit yu mu jàppale population bi dugg aussi si gox-goxaan yi lu si mel ni lieu de rassemblement yi marché Ocass dafa liggéey bu am solo euh, tey ji lu ni mel lu ngeen prévoir woon la na naa. waaw jërëjëf sëriñ bi ñu ngi lay siyaarewaat bu baax tey euh, rafetlu dalal gi nga xam ne waa nit di acti ñu ñu koy dalal di nuyu itam ndax bu ñuy wax ci kanam Touba kanam dafa am kilifa. ndax Touba kanam association la waaye ci yoonu murit la nekk yoonu murit nag eh, kilifa la am eh, ñun tamit yàlla dogaloon na fekkoon nañu suñuy waajur tàggat ñu ci taalibe ba nekk fi kilifa doon am kilifa dañ koo gënal doon kilifa am kilifa dañ ko gënal kon nag ñu ngi leen di nuyu ci turu ñi nga xam ne ñooñu yilif ci Touba kanam eh, ci turu sëriñ Alaaji sëriñ Tàkku mu Cheikh Modou Fadal li nga xam ne mooy ambassadeur Touba ci kanam ak sëñ Abibullahi Mbàkke mu Cheikh Amadou mi nga xam ne mooy responsable moral bu Touba ci kanam ak jëwriñam sëñ Abdou Lahad mu sëñ Abib ak président sëñ Abdou Fatah Gueye ak mbooleem membre Touba ci kanam yëpp góor ak jigéen mag ak ndaw comme noonu ko leerale léegi rek Touba kanam li leen tax a jug mooy li nga xam ne nii sëriñ bi daf koo ñor ba mu wutal ko ab téere ndax sëriñ bi eh, daf day koo xam ne nii du jàmbat aajoom mukk di ko jëmale ci mbindeef comme nam ko waxee woon rek ci jamono ya nga xam ne nii sëriñ Mor Anta Sali bàyyi ko na fi te ñu nekk ci di ko waajal dafa xew xes ba gudd na waaye bin koy wax ne ko ngir ñu teg ko ci wetu buur ba fa nekkoon muy Lat Joor ngir eh, mu am ay privilèges yoo xam ne dana mën a jóge ci buur di ñëw ci moom ngir itam bu buur bi yittewoo ko àttal ci diine sëriñ bi mën a taxaw taxawaay boobee te mel na jamono booba ñëpp dañ ne woon géej am lu mel noonu te sëñ bi sandoon am solo googee mooy xaaloo li yarkat li abwaabi salaatini taxus jaa isa tuxni kullama ayni wa qultu xasbi rabbi waktafaytu bihi wala suraadiya xayral xilmi wa diini walastu arjo wala wayun juuni boo demee ba ci xasida xasida ga dem na ba wax naan ana ufaawidu ahwaali liman ajasoo xan xaali xaj sihimoo xacal masakini noonu nga xam ne sëriñ bi dafa doyloo woon boroomam walis leneen lu dul moom moo tax bi nga xamee ne ñëw na di sanc dëkk bii di Touba nga xam ne ni bi koy sanc amul jënn yéene lu dul jaamu fi yàlla ak dundal fi sunna si yonante bi sallallahu alayhi ndax sëriñ bi sanc Touba ngir di fi liggéeyee mbir moo xam ne nii da koy jariñoo ci am koom ñëw fi woon tamit ngir bay wala sàmm waaye dafay ñëwoon rek ngir jaamu yàlla waaye teg ko ci sunna si yonante bi sallallahu alayhi wasallam te loolu boo jàngee raaya man lam yaskun mu dawin mu dawin maskani saalik ilaa li ibadatillahi subhanahu wa taala boo demee ci matlabul fawsayni tamit bi jaahi man haajiral xaayiru ilayha li ihyaai sunnatihi wax kon nag moom ginnaaw léppam boromam la koy ñaan moo tax mu wutoon ak xasida goo xam ne ni mooy procédé société bu Touba muy e, matlabul fawsayni te boo tàmbalee xasida gi rek dana la wan ne objectif bi mooy ñaan yàlla ak sant ko maqasatul xasidati hansi adduhaa wa Euh, mu ñaan ci boromam booleem li nga xam ne daf koo bëgg ci dëkk bi yëpp ba noppi ñaan boromam dëkk bii di Touba doon dëkk bi nga xam ne moom la sunu borom gën a sopp ci kaw suuf moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam gën a sopp ci kaw suuf wa ci xalawu yaa rabbi ahabu maskani fii aatina lakk wal maysani ñaan ci itam dëkk bii mu doon dëkk boo xam ne nii dëkk ragal yàlla la euh, boo xam ne nit ki dafiy yëkkatikoo xam boromam ba mën a àgg ci yàlla ndax loolu moo taxoon a jug sëriñ bi sëriñ bi mujjadit la adfooka an tajxaluhu daara tuqaa wal xilmi wa diini wa daaral ci biir xasida gi tamit ñaan na fi suñu borom def ko muy dëkk boo xam ne nii dëkk bu xam-xam la dëkk bu ñuy toppee sunna dëkk boo xam ne dañ fiy xalaate wajxalhu dahban maskana taxallumi wa mawdihal fikrati wa tafahumi ak yeneen yi nga xam ne nii da koo bëgg ci dëkk bi yëpp doy na ci sëkk rek li mu wax ne euh, ba ci sécurité wacaanoxar yi mëna xar yi mën amina wa kun bi xifsihi kafilan kafilan daamina sécurité bi sarsi bu ko kenn ku dul suñu borom ndax ma naa wax ne maa ngi ko dénk eh, diw sàngam waaye ki muy ñaan sécurité dëkk bi mooy suñu borom boo demee ci xéewal yi nga xam ne ni moo am ci dëkk bi tamit nga xam ne bari na foo xam ne nii mën ngaa sut Touba ci ay fan waaye Touba la ëppee xéewal loolu nag borom da ko fee ñaanoon wa kasiran xayraati azal baradi wa risqahu wal takfi an nakadi waaye bayit bi nga xam ne mooy résumé loolu lépp day mel ne da ciy duggaat di wane baat bu nekk ak jumtukaay bu nekk fa jëm waaye li ko tënk lépp mooy waccal ilaahi maskani Touba bat mislas miha bi jaay xayri man xabat googu nga xam ne mooy bàkk Touba ci kanam muy ñaan mu def Touba mu mel ne turandoom ba nga xam ne moo nekk ci àjjana kon day mel ne sëñ bi moom ñaanoon na lépp ñun nag biñ ñëwee sopp ci kuréel yi nga xam ne naka jekk daan nañ liggéeyal sëriñ bi bari na ay kuréel bu xëy na bu dugg ci lim bi mën naa ñoo bañ a matal waaye Touba ci kanam noonu la sosoo ñëw rek ngir bokk ci ñi nga xam ne ñooy jëmmal ñaanuk sëriñ bi nga xam ne suñ borom nangu na ko ba noppi mu mel ne kon boo boo jugee ngir fexe ba Touba dem ci kanam ci saayir lépp da koy waajal euh, Touba ci kanam dafa nosu amoon na at mu jot ñi nga xam ne état day budgétiser li nga xam ne moom la war a def ci at mi muy wàllum jàng wàllum euh, ndox wàllum courant wàllum liggéey wàllum lépp Touba ci kanam noonu la tegoon tamit ay perspectives yoo xam ne mooy deux mille vingt ci anam bu nekk lañ ca war a def mu mel ne nag lii nga xam ne dafa ñëw nag moom bokkutoon ci perspective yi ndax waajaluñ woon ne am nattu dana am bu wàcc ci àdduna loolu waajaluñ ko woon kon dafa mel ne lu lu lu lu jekki-jekki rek euh, dal ci sunu kaw la waaye ginnaaw yàlla dogaloon nañu waajoon ko te sukkandiku woon ci li nga xam ne noonu la sëriñ bi defoon ci njaareem muy ba mu laajee ñaar fukk juróom-ñett yooyu ngir waaja ngir ñu mënal suñu bopp boobu ëllëgee kenn duñu sañal ndax ku la manal la ndax olof dana faral di wax sax ne ku dabali bët moo lay joxañ fa ngay xool kon nag fekkoon nañu ñu laajoon murid yi ku ci nekk weer wu nekk ñaar téeméer ba am na lu fi daje woon loolu nag bi mbir mi ne bi mbir mi dalee ci kaw adduna bépp mu mel ne aaya boobu suñu borom di wax ci alquran wala nabluwanakum bi shay'in min al xawf wal juu'i naqsin min al amwali wal anfusi was samarat day mel ne aaya bi mbooleem yin ci wax yëpp tawat ji dal moom dal ci kaw askan wi làmbaareen aaya bu aaya boobu mboolem liñ ci wax rek am na ci muy ragal ragal gi nit ñi ragalante ci seen biir rek euh, maanaam alal ji nga xam ne dafa wàññeeku euh, bakkan yi nga xam ne ñoo ngi ñoo ngi génn àdduna ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen ba tax na bi mu ñëwee tamit Tuubaa ci kanam ginnaaw askan wi mooy murid yi la laajoon seen alal ngir mu del ñooña buñ soxlawaat soxlawaatee ngir mu dollee ko ci ñoom yaakaar naa dana yomb moo tax bi nga xam ne lii ñëw na rek Cheikh Mamadou Mountakha mi nga xam ne ni moo fi Serigne Touba yàlla na fi yàgg lool te wér bi mu génnee ñaar téeméeri million jox jox ko ñi nga xam ne ñoo jiite réew mi ngir ñu jàppale ci askan wépp nga xam ne amu ci xaaj seen amu ci murit wala wala laneen a mujj sax julit wala laneen euh, digle ñu roy ko ci ba noppi digle ay ñaan Touba ci kanam ca loolu la soos rek daal di daal di moom tamit dekkeese lu tolloog ñeent fukki millions ak juróom quarante cinq million ak quarante cinq millions bi ngi ko décaissé itam dafa dem waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom la yàlla dénk wàllum adduna fii ci dëkk bi muy préfet sous préfet gouverneur ak euh, euh, mairie bu Touba euh, am na ci ak waa service d'hygiène léegi nag ñu ñu ñu nas ko maanaam mbir mu ci nekk rek dañuy fexe ba bërëb yi nga xam ne fa la nit ñi di ëpp lu ñu dajee ndax dañoo wax ne fi nit ñi ëpp lu ñu dajee ñoo ko gën a soxla soxlawoo fii ci Touba nekk fi nekk ci ay juma yi ñuy jullee ajuma mën na téeméer ak ñaar fukk lu topp lieu yooyu yëpp nag ñu fexe ba yóbbu fa jumtukaay yoo xam ne day gën a sàmm cet ga ndax doonte doon na cet naka jekk waaye comme euh, nit ñi dematun dikkatun dana aajo woon yóbbu fa tàmbalee ko ci jumaay Cheikhul Khadim ji muy jumaa ju mag ji dem ci yeneen jumaa yooyu yëpp bi noppee dem nañ ci 32 euh, barab yoo xam ne barab bi fajukaay la ñoom tamit yóbbu nañ fa ay jumtukaay ak ñetti hôpitaux yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi muy jéemul ak euh, hôpital Ndaamaatu ak janatu bi itam dem nañ police gendarmerie sapoor yooyu yëpp yóbbu nañ fa ak euh, ci ci ci euh, daare alxuraan yi ndax jamono ji couvre fa day am bu guddee donga yi duñ mën a génnati di wuti luñ luñ ndimbal loolu sax sëñ bi def na ci ab soññe bu mag wax ne képp koo xam ne jege nga daara rek ngay toppatoo donga ye ñu ngi ciy profité waale di leen ko fàttali ndax ndigalu sëñ bi la ba noppi eh, lu mu jaari ci sëñ Mamoor mi nga xam ne moo yor daare alxuraan yi muy képp koo xam ne jege nga daare alxuraan ngay togg ab bool wala la ngay togg sa kër ngay yóbbul ab bool daara ja ngir ñu mën a bañ a génn daara yooyu tamit jëloon nañ ci lu tollook junni ak téeméer nga xam ne liñ dépassé lépp daal mën na 45 millions yoo xam ne tamit marché bi marché Darou Khoudoss ak yeneen marché yi nekk ci dëkk bi ak marché Ocass pompe nañ ko ànd waa ICC waa service d'hygiène bi nga xam ne ñoo nekk fii ci région bi Diourbel di leen nuyu seen njiital seen jëwriñ sëriñ Fallou Sarr ak euh, sëriñ bi nga xam ne ni moo nekk ci département bi ñoom itam bi ñu ñëwee bare tubaa Touba ci kanam xool yi nga xam ne manqué nañ ko te bari woon bori woon na lool tubaa ci kanam génne ab budget jox leen ko ñoom waa service d'hygiène euh, boo xam ne da leen jëndal ay matériel joxu leen xaalis bi waaye da leen di jëndal yi ni soxla ci wàllu pomp wàllu machine wàllu jumtukaay yi ñuy soxla ba noppi jël carburant jox leen boole leen ay otoom ak ay ay ay ay nitam yoo xam ne nii dañoo jaayante xidma euh, guddi gi ñu ñu ñu ak UGC ñu ñu balee dëkk bépp ci marché yi ba noppi pompe ko ba nga xam ne microbe yi nga xam ne mënoo ko teg ak sa bët ñu dindi ko bi noppee ci loolu itam euh, jël nañ ambulance euh, yi nga xam ne Touba Ca Kanam moo ko moomal boppam jël nañ ko mettre ko à à disposition ci waa Croix nga xam ne guddi gi xëy na bu couvre-feu bi tàmbalee nit ku wéradi mën ngaa am jafe-jafe génn ñu jox leen ko ngir ñoom tamit bu guddi gee ku wootee rek ñu mën la ca euh, wallu carburant bi nga xam ne tamit ñoom moom la déplacé loolu Touba kanam moo ko moo jox ak yeneen ak yeneen kër yi nga xam ne dañ leen a quarantaine ak yu bëree bëri daal yoo xam ne Touba ci kanam def na ko ci 45 millions yooyu nga xam ne fii may wax ak am nañ dépassement budgétaire bu bëree bëri 45 millions yooyu ëpp jiitu na mu ñëwaat nag tombeek itam dëkk bi bari na ci barab yoo xam ne dafa manqué woon ndox am forage yoo xam ne dañoo paan toll ci 5 forage yoo xam dañoo paan donte Touba Kanam bokkoon na ci perspective 2020 bi muy waajal eh, yóbbu ci ay quartier ndox waaye bokku ci woon nag jënd ay pompe pour forage nga xam ne loolu tamit dafa ñëwaat dal ci kaw Touba Kanam doon lu jàmp loo xam ne nii mënee su koo xaare te olof nee na lu ne ne këtt moom lu ne jonn moo koy faj te loola buñ xoolee jamono jii mënuñoo xam lépp lépp lépp fu mu toll waaye mën nañ koo xayma ci minimum mën na 48 millions moom nga xam ne loolu bu fekkee c'est 45 millions yi ak dépassement budgétaire bi day mel ne 100 millions yoo xam ne Touba ca kanam génn nañ ko boo ko boolee ñi nga xam ne. alors que ñaata ngeen budgétisé woon na pour année 2020 bi ñu nekk. Euh, année 2000 bi li nga xam ne moom la Touba ca kanam prévenir woon pour mu war a doon li ñu war a def ci at mi 1 milliard et quelque la woon. 1 milliard et quelque ndax année 2019 bi ñu ngi ci dépasé lu toll ak cent et quelques millions su ma juumul euh, xëy na chiffres yi dama ko tiimul waaye su ma du sori foofu. léegi ñu ngi doon xalaat un milliard et quelque suñu yéene nag mooy bu buñ mënoon objectif bi nga xam ne moom la ñuy visé muy vingt quatre milliards par an loolu tamit ñu ngi ciy profité waale du soññ waale suñu mbokki taalibe yi nga xam ne sañ leen ñu dugal ci seen loxo euh, léegi nag ci loolu ci loolu kon day mel ne lii daal mbir mu ñëw la moo xam ne dafa dal dale te fekk na booba waajaluñ ko woon waaye taxul itam ñu dakkal lenn lu ñu nekkoon ci li nga xam ne moom lañ doon jëf ndax Sëñ Tuubaa moom xàmmeewul jamono ju naqare ak ju neex. sëñ est-ce que vingt quatre milliards c'est faisable c'est réalisable aussi si biir Sénégal. damaa dégg ci Touba ci kanam suñu benn maam bu nekk ci Touba ci kanam euh, di wax ne l'impossible n'est pas mouride c'est pas n'est pas mouride maam lu mu mënta nekk du mouride ndax boo xoolee raay bii nga xam ne nii moom la Cheikh Mamadou Moustapha jëlee njaareem indi ko ci Touba. te yaakaar naa diggante Touba ak Diourbel war naa mat quarante cinq minutes quarante cinq quarante cinq kilomètres environ bi mu ko fi indi condition yooyu moo gënoon tar fuuf ña fi nekkoon jàpp naa ne bu dee ci sayir rek loolu lu ta nekk la ndax condition yi ko tubaab bi tegoon ak ñi nga ouvrier yi nga xam ne ñoo ko war a liggéey mu war leen a fay te dara waru cee tardé te tamit matériel bi koy indi dañ koy jaarale ci terrain ak yu demee ak yu bëree bëri te teewul Cheikh Mouhamadou Moussa réalisé ko ci ñàkk Euh, association wala benn fonds baneen bu jugee extérieur appuyé wu ko kon loolu lu munta nekk la woon lu ñu jàpp ne munta nekk jumaay Tuubaa ji Cheikh Ahmadul Xadim mi nga xam ne nii moo ko ñaanal boroomam ca ba mu nekkee ca géej ga laxoog laxoog tub salaatan ma salaam bi alihi wa ashaabihi wajhal bihi masjidi rahba jooju mu ñaanoon te suñu borom nangu ko ba mu koy wax ñi nga xam ne ni amuñu bëti amuñu basira jàppoon nañ ne wër su nekk lu mel nii wër su mën nekk doon ay milliards milliards yoo xam ne nii ñi ko tabax muy mu tàmbalee ko Cheikh Mamadou Moussa waaye Cheikh Mamadou Fadal mi nga xam ne nii moo ko defar ba indigré ko 1963 le 7 juin moom boo xooloon këram xool jumaa ji da ngay jàpp ne kii waru ko mën a liggéey kon loolu tamit day mel li impossible ci la ci la bokk université bii nga xam ne nii Cheikh mu Mountakha euh, bala mu fa agsi sax Sëriñ Abdou Lahat doonte samay at bëriwut waaye nettali nañ ne ba muy laaj fii milliard ku mos a dégg kuy laaj milliard ci kaw suuf amut te diir bu gàtt lañu wax mu ne milliard ba man na loolu sax yëg naa ñu ne tegoon na ca ne eh, ndax jamono yi eh, tartar la woon mu ne eh, jamono jii di jomay lañ laaj waaye xool yi nangu moo gën tool yu naat te loolu tamit lu impossible la woon Serigne Saliou bu muy génne fii fukki milliard di ko teg ci taabal ji lu impossible la woon ndax ndax kenn ko mas a xalaat ne loolu ma ab citoyen Sénégal yi dana mas a génne lu toll noonu di ko teg lu impossible la bi mu nee jumaa ji dañ koy fexe ba suuf dootu fi amati lépp ñu defar ko nii ñu ko defaree lu impossible la woon sëñ Sidi Maxtaar bi muy def Masaalikul ak yeneen ak ak yeneen yi mu def fii day mel ne lu impossible la woon te Cheikh Mamadou Lamine Bara moom bul fàtte ne fan weer weer la fa am Cheikh Mamadou Muntaxa mii réalisation yi mu fi defa gund ak ak ak léegi koo gis da ngay jàpp ne lu impossible la rawati nag mu sumb université boo xam ne nii ñi ngi wax ne 38 milliards lañ ci war a def te boobaak léegi donte ñu ngi ci jamonoy tartar jamono yu metti université bi mos a taxaw te bientôt incha allah dana lépp dana mat incha allah loolu ñu ngi ciy profité waale sax di ñaanal ñi nga xam ñoom la ko sëñ bi dénk ci jiital suñu ahmadul badawi ak ñi ko ci jàppal lépp suñu borom. soo gisee sax question boobu noonu ma laaj la ndax mën ngeen ko am dafa fekk ni yéen si modèle hmm. su ma juumul euh, wàllub saayir parce que tubaab bi ay association lay créé bu ngeen ne budget aussi tamit da ko dafa fekk baax si tubaab te tubaab bu taxawalee budget euh, day am ay prévision maanaam ñi ko. war a xayma si lii wala si laa waaye nag budget boobu aussi dafa am foo koy jëlee soit ay tax wala soit euh, ay xaalis booy leb wala soit ay fiscalité yooyu yàppal baay yëpp tax la xeetu tax la rek wala xeetu lepp yéen Touba kanam benn euh, source ngeen am benn ressource mooy taalibe yi ñoom donc ñooy def seen donation loolu dama bëgg xam ndax pas-pasu taalibe yi àgg na si. ngeen mën a récolter vingt quatre milliards par an wala yéen a koy accélérer à travers la communication bi ngeen def parce que gis nañu ni seen communication vraiment euh, macha allah yan stratégie ngeen di def ba war a mën a réaliser loolu quoi. waaw loolu euh, xam nga ñun ak tubaab bi dañoo bokkut ñun ak tubaab bi dañoo bokkut tubaab bi ci xel lay dox te ñun ci pas-pas lañuy dox pas-pas nag amut fu muy fu muy yem weeru koor gi ñu nekk ci la xare xare badara amoon. trois cent treize personnes fu ñu mënee not junni wala ñaari junni du xel du expérience du am jàng waaye pas-pas a tax pas-pas booba saxaaba yi amoon nag te Sëriñ Tuubaa waxoon ne saxaaba yi ñooy seen bàyyi ci diine moo tax pas-pas booba ñun la ñuy association Touba Ca Kanam boo déggee ñu koy tudd bu mënoon tudd daayira Touba Ca Kanam dañ koy tuddee waaye dañoo nekk ci réew moo xam ne nii du état islamique du état boo xam ne ni état murid murid la wala état tijaan waaye état laïque la maanaam république lañ nekk république euh, alfaslu bayna diin wa dawla la maanaam da ngay xaajale ñaari day mel ne rek aw nag nag ñaari béjjën lay am ñaari béjjën yi boo bëggoon a xëcc bii ba bam laal bi nag bi day gën àdduna kon ñoom ñaari ñëpp dañoo war a làng dox kon nag faaw dañuy méngale ñaari yëpp buñ ko mënoon tudde daayira dañ koy tudde waaye comme li wax léegi république lañ nekk te république nanguwut am na ci yoo xam ne ni faaw nga am ay kayit yuy wane ne lii ngay def lii moo tax nga di ko def moo tax ñu créer association wutal ko bureau mu am secrétaire rek yëpp ñi nga xam ne moom la association di am waaye ca dëgg-dëgg moom bañ na ko ba sëñ Abibu mi nga xam ne nii moo génne xalaatu ñaar téeméer weer wu nekk ab murid di ko joxe moom ba woote yaakaar naa ñi ma bokkal pas-pas la wax ñi ma bokkal pas kon affaire mbir mi mbirum pas-pas la fii mu accident it pas-pas moo fi àggale waaye doonul stratégie wala mu doon am xel teewul na ginnaaw ci àdduna lañ nekk da ngay jëfandikoo sabab sabab yi ndax bokk na ci sax diine topp da ngay maanaam da da ngay jëfandikoo sabab yi ba noppi lu ci yàlla da ngeen dégg ci lu siiw ñu ne yonente bi sallallahu am na ko mës a ñëw ci moom fekk ko ci biir bàyyi ak gileemam ci bitti bi ñëwee ne yonente bi yonente bi ne ko doo ndax doo yeew sa gileem gee mu nekk ko naa ko yàlla ak ak yonenteem yonente bi ne ko déedéet da ngay dem yeew ko ba mu dëgër nga dénk ko yàlla ak yonenteem ndax ci fi mu ne nii nii ñu jëfandikoo di di xewlu lekk taxut a suur naan taxut a mar waaye nag sabab bi mooy boo lekkul naanoo mën mën ngaa loro waaye da da ngay xewlu ba nag bàyyee yàlla nag yàlla mooy mooy xiifa mooy mooy maral mooy màndal euh, léegi tamit Tuubaa ci kanam comme adduna la ñekk teg nañ ay stratégie yoo xam ne nii wàllu communication bu ngeen seetloo fan yi da ngeen gis ay sport yu bëri ñu koy dawal ci télé yi nga xam ne moo nekk ci réew mi gis ngeen itam Orange Money bi nga xam ne moom la ñuy jëfandikoo ak yeneen eh, kii Tigo Cash beeg i Money beeg yu demee noonu gis ngeen ne eh, jamono ji nekk ñu ngi koy publier ndax comme déplacement mënatu mënatu bari eh, yooyu dañ koo gën a appuyer ci wàllu communication liñ ci prévenir ren ngir bëgg ko cee def war naa toll ci 60 millions loolu tamit mënu cee ñàkk ndax ci àdduna lañ nekk waaye mooy pas-pas ak dox jëm ci sëriñ bi ndax sëñ bi moom euh, mbiram yëpp sëñ bi malaka ni duniyaaw oxra samadu moom jeexal nay wax suñ borom moom loo na ma àdduna alaxira kon sëñ bi loolu jeexalu ko nifaali wa ibqaa'i wa fawsi bila ana bi kaw nii xarimal Moustapha tatabayyanu loolu moom day am waaye nag wut saayir si ñu ngi ciy def liñ man euh, ñi ngi wut boo xoolee ci wetu jumaa jeeg ci marché yeeg yëpp am nañ fa ay casque yoo xam ne nii ay collecteurs ña nga fa boo demee ci régions yeeg yooyu yëpp ba noppi nag appuyer ko a communication boo xam ne nii yaakaar naa yéen ñiy siifu da ngeen da ngeen ko mën apprécier seen. Euh, commission sociale mën nañu wax ni sax euh, mooy euh, noyau dur Touba Ca Kanam ndaxte ay activité am dafa bari te yoon wi tamit sociale da see am njëriñ mu yemook nag moment social parce que mbas mi ñëpp xam nañu ni ñun dañuy itteewoo ay lu ñuy jëfandikoo dund ak wala lu ñuy utiliser pour mën a aaru si mbas mi ndax Touba Ca Kanam dafa am benn programme spécial bu mu jagleel Covid 19 si Touba. bu dee programme boobu am na tamit euh, ndax tamit da ngeen di continuer seen activité ba faw ak budget bi ñaata la si wàllu woowu bu tey muy wàllu Covid. wàllu waaw wàllu social si Covid bi coronavirus bi. waaw social bi moom ni ñu ciy doxee ñun waajaluñ Covid Covid 19 ni ñu daan doxee dara lañ ci soppiwut bu dee Touba ci kanam d'une manière générale bi Covid bi ñëwee moom am na lu mu décaissé pour Covid bi ci biir loolu tamit kër yi nga xam ne nii ci jamono bi fi soog tàmbali ñetti kër yi nga xam ne moom la ñu waxoon ne dañ koo quarantaine ñun demoon nañ fa yóbbu fa ay ndimbal eh, ndimbal yooyu tamit dañoo jaar ci ñi nga xam ne ñoo yor wàllum paj ñu xamal ñu ne mënuñu leen mënu leen a am accès ci ci kër yooyu waaye am na fu ngeen mën a jaar muy waa action sociale yi nekk fii ñu dem ci ñoom jébbal leen li ñuy joxe ñu defal ñu décharge wane nañu danañu àgg ci kër yooya bi nga xamee demaan nañ ba mu ka eh, amatu fi tamit dañoo continuer ci lañ nekkoon ñun bi ñu waxaatee kaa amaan na fi ñu ñu demaat nemmi ko ñu wax ñu kër yi fa nekkoon ñu ñu jàppalewaat leen loolu lépp nag fekkoon na sëriñ bi moom naka jekk mi ngi ci woon waaye ñun dañuy ñëw rek topp ci ginnaaw sëriñ bi lu sëriñ bi def ba noppi rek ñu barkeelu ca social bi moom amut luñ prévenir pour euh, luñu lu ñu waajal ngir covid 19 wala wala yooyu waaye niñ doon doxee dara lañ soppiwut ndax niñ doon doxee mooy di taxawu euh, ñi nga xam ne ñoo dëkk dëkk bi rawatina ñi nga xam ne nii seen loxo jotu seen ginnaaw jamono jii nii bu mosaan agsi eh, weeru koor dañoo dañu daan gis ne weer la woo xam ne nii eh, weer yëpp la def lu baax yàlla waaye weeru koor ci la gën a yàlla ndax loo ci def suñ borom da koy ful te ki nga xam ne nii moo dox suñu diggante ak jaamu yàlla muy seytaane suñ borom da koy tënk ci biir weeru koor nit ñi itam ñi daan laaj bu weeru koor li ñuy dépassé day gën a yokk ba tax na weeru koor bu daan mos a jub dañ daan recensé ay njaboot yu baree bëri yoo xam ne nii at man ko jëkkee def deux cent personnes la woon bi ci topp doon deux cent trois cent trente huit daaw mi ngi doonoon cinq cent famille ren jii eh, ëpp liñ liñ recensé gun mat na mille famille ba ëpp ko waaye loolu moom jotugut ak Covid dara bu Covid demee fi koy bàyyi yàlla na fi yàlla na fi jóge nag waaye bu ñëwutoon tamit du tey ñu def amul leen lu mu sens ñun li ci desaat mooy bu korigee niñ niñ defoon ci tabaski kori gi eh, koor gi danañ ko defaat ci kori gi bu jamonoy tabaski jotee dañ koy def bu jamonoy màggal jotee dañ koy def bu dara xewut itam dañuy continuer ci di jàppale population bi nga xam ne seen ndox jot seen ginnaaw ci wàllum dund ak ci wàllu wér gu nga xam ne daal Covid ak ñàkk Covid ñoo yam moom amu amu ci benn daal bu ko commission sociale lu mu changé ci aw doxalinam. jërëjëf sëñ bi organisation bi dafa dem ba jël taxawaayu euh, municipalité bi ah parce que nit ñi sax dañuy jéem a concurrencer wala ñuy comparer ñaari entités yi Touba sa kanam ak. maire yi yéen la moo seen sentiment si loolu buñ koy wax da ngeen koy encouragé wala da ngeen toog fa ngeen toog jàpp ni yéen mission ngeen am bokk leen ak dara maire yi wala ëllëg xalaat ngeen collaborer ak moom wala sax pourquoi pas jël place am parce que ñu bëri ñu naan da war jël la place de la municipalité. waaw loolu moom li ci tontu xam naa officiellement du du kàddu Touba ci kanam. Euh, euh, lu officieuse la waaye mën ngeen ko tuddee naar bu ndaw. naar bu ndaw nu ñu koy waxee sax naar bu ndaw. aca berkere ba lañ ko déggee mën naa wax wax joo xam ne nii du ma am naa ci njortul ma ma njub ci ne mooy xalaatu ñi nga xam ne ñoo jiite Touba kanam mooy Touba ci kanam ñëwu Touba ñëwu fi ngir di xëccoo cërub kenn wala muy puus kenn ngir mu toog ndax ñun amuñu fu ñu bëgg a toog loolu benn place lañ bëgg a toog muy nekk taalibu Seexul Xadim ndax Seexul Xadim ñaanalut maire yi ñaanalut laneen ak lan waaye taalibe mi la ñaanal ñi nga xam dañ koy liggéeyal xidma wax di xamaa jël la sin daamo fii xidmati wa xam la ma maire bi Touba ci kanam amul sax xalaatu ñu dénk ko maire bi ëllëg ndax ñoom ci sëriñ bi ci ndigalu sëriñ bi lañuy dox lépp luñ xam ne bëggu sëriñ bi daal ña nga ca ndax maire bi itam euh, ñun dañ ko tànnutoon ñun waatu Touba ci waa ci kanam tànnuñu ko sëriñ bi la soob mu teg ko bi sëriñ bi lay soob tamit mu wéyalal ko sëriñ bi lay soob tamit mu sant ko laneen ah, mais maire yi nu mu tëggoo mooy li ngeen def participation citoyenne mooy doxal euh, acte trois bi sañu wax et d'ailleurs bu fekkoonte ni école la ma naan Touba réussir na ko à travers Touba sa kanam kon Touba sa kanam bu amul ambition nit ñi bëgg nañ mu am ambition parce que nit ñi li leen soxla si ñoom la nekk nit ñi ñoo leen ko poussé waaye xam nga nit ñi tamit euh, liñ bëgg moom la ñuy bu fekkoon ñi rek la ñuy déglu kon euh, nit ñi la ñuy déglu waaye yoonu murit du yoon woo xam ne nii ay xalaat la ñuy dajale di ko def waaye am na xalaat bu fu ñu mujj maanaam am na am na xalaat bu gën a kawe ñaan ñun ñëpp suñuy xalaat nii bu dajale suñuy xalaat am na xalaat bu ko gën a kawe boo xam ne nii bu ne na dañ léegi mu dañ bu ne woon wéyal leen ñu wéyal te loolu seetlu nga ko bi Touba ci kanam di soog tàmbali am na étape bu mu toll boo xam ne nii dañoo demaat toog ca sëñ Sidi Maxtaar ci njiital sëñ Abibu ak sëñ Alaaji Sëriñ Tàkku mu Cheikh Amadou Fadal ak ñan àndaloon ñu ne sëriñ bi liggéey bi daal li taxoon ñu sumb ko mooy liggéey sëñ Tuubaa boo nee na wëy mu wëy boo nee nañ ko taxawal fii ñu taxawal ko fi sëñ bi ne na wëy kon ñu dëgg la ay xalaat moo ko waaye ci ndigal la ñuy boobu nga xam ne nii moo yore ndigal li ci ay ay waam la ñuy donte nag eh, nos nañ ko moom lam ñuy digal moom la ñuy waaye nag eh, ñëwuñu daal pour pour pour concurrencer ku maire li ñuy yitteel daal mooy Touba li fi sëriñ bi bëgg na am loolu nag li ñu mairie bi dimbalee mooy rek mu mu gën a baral jéego yi te gën a bàyyi xel ci li askan wi wax ngir ñoom buñ jàppee ci côté fexe ba mu baax ñun ñu jàpp ci côté bee fexe ba mu baax waa xidma jàpp ci côté bee waa keneen jàpp ci côté bee loolu lépp Touba moo ci gagné rek. ndax Touba sa kanam moom mooy définir ay dépenses am ak euh, projet am ak activité am wala parfois dina jël aussi tamit ay sollicitation maanaam nit ki bind demande ñëw ni kat bëgg naa ngeen defal ma lii ngeen defal ko ko. waaw loolu day loolu day am loolu day loolu am ndax. waaye nag demande bi du doo gis rek ka ne man dara laa ci Touba ci kanam nga jàpp ne boo ñëwee ci man man mën na maa fexe ban ban defal la nangam wala ñu wala ñàkk laa defal nangam wala nga ne Serigne Abibou mooy kilifa Touba ci kanam yow nga bëgg ab forage wala nga bëgg ab poste nga jàpp ne Serigne Abibou ci boppam boo demee ci moom man na laa defal nga am poste santé ba Touba ci kanam doxewul noonu ndax ñun dañoo jàngat ci kuréel yi ñu fi jiitu woon yëpp li nga xam ne jaaroon nañ ca ndax ñoom ñëpp yéene ak yéene liggéeyal sëriñ bi lañ amoon waaye boo demee ba ca biir euh, mën ngaa gis loo xam ne ay pakk yoo xam ne mën na laa fakkatal fakkal sal benn nga traversé ko jàll wala nga nga taxaw loolu am na benn waykat bu wax ne laa tax jaban min xaarikin kay fa xawa bal fax jaban min saarikin min saalimin kay fa najaa ki nga xam ne def na ba réussir nga def nam def loolu nag moo tax ku am loo soxla woo moo xam da ngaa soxla woo ci quartier ndox wala dangaa ngaa bëgg ab poste santé wala yu demee noonu dangay dem bind demande yóbbu ko ci siège bu tubaa ci kanam bu noppee waaye comité directeur buñ ci jotee ñoom danañ ko étudier xool bu dee ci wàllu wér-gu-yaram la ginnaaw ñun suñu xam-xam màcc am na ci ñoo xam seen xam-xam màgg na ci màcc na ci wér-gu-yaram waaye wér-gu-yaram dañ koo am fuñ ko dénk fii dañuy dem ci docteur Dieng mi nga xam ne moo fi nekk moom mooy xool site bi nga xam ne foofu lañ bëgg poste santé bi ndax yelloo naag poste santé wala déet bu dee ci wàllum ndox ak yooyu nag moom waa maa u rahmati la ñuy consulter ñoom ñu xoolal ñu bu buñ fa waree yóbbu ndox début bi ak yooyu lu muy doon bu ko defee bu fekkee ne mën nañ ko ci jamono boobu ñu defal la ko waaye du jaar ci kenn nit daal waaye ci ci ci mbooloo mi lay jaar mbooloo mi tamit ñoo koy waxtaanee xool ba xam sa bëgg-bëgg bi mën naa nekk wala déet la ëpp ca mbooloo ma lañ wax. kon membre Touba Ca Kanam individuel amul faveur ngir mën a def social par exemple yow ku si mel ne Serigne Moutala ñu sàkku si moom ndimbal est-ce que am na possibilité man dem jël joxe sans avis groupe bi. Euh, man li ma la mën a dimbalee mooy li nga xam ne yàlla war sa wërsëgale ma wërsëgale sa wërsëgale na ma ko man loolu moom mën naa caa jël jox la waaye li nga xam ne nii Touba Ca Kanam moo tax ñu jox ma ko loolu moom mënuma ci jox kenn ndax looy dégg la waaye du nekk ci ay loxo yoo xam ne da koy mën a tiim euh, di mën a tibb di jox kii ci misaal jamono ji ñu ngi toll ci wàllu seddale ceeb ak yu deme noonu ak suukar rek yooyu waaye fi ne man mënu ma laa may benn saaku ceeb ndax ceeb bi man nekkul ci sama loxo lii tax mu génn tamit nekkul sama loxo fi mu ne ñoom du man maay toog rek xalaat ne nañ jox diw ak diw waaye dañuy dem def recensement boo xam ne nii ku nekk fan lay yebal du bokk ak fa nga xam maanaam ci misaal man bu fekkee ne waa Ndindi laa gën a xam bu ñuy def recensement duñ ma yebal ndin dañ ma yebal euh, saate kaneen noonu kaneen noonu bu ko defee nag euh, ñin recensé ñoom ñoo am àq ngir jot loolu ak ñi nga xam ne dañoo demoon yàlla dafa dogoon dogaloon ñu def direct ci sees ba ñoom lañuy jël léegi buñ leen jëlee nag ñooña la ñuy mën a jox buñ lay jox tamit day am firnde ji wane ne diw mii nangam bii moo tax ñu koy jox jox la ticket jox la fa nga koy jëlee nga xam ne man du man ticket bi duma ko bind man du ma koy joxee tamit magasin bi mi nekk ci ci ticket lay basé wu ak ci liste bi nga xam ne mënuñ ko jox nga xam ne man njiit di rek laa li may man rek mooy soññee su ma gisee kaabu garaaw boo xam ne nii nekk na fa mën naa leen soññee ne ah kii kat yitte woon na ko lool war ngeen a xoolaat mbiram bu ko defee ñoom ñu waxtaan ci bu fekkee ne li ma leen wax ñoom Eh, yëpp yabal nañ ay enquêteurs sociaux ban gis ne li ma wax lu wér la ñu def ko bu ñu gisee ne lu wér tamit ñu bañ ko. bi sa xayma am naa may laaj bu mujj bi sax sa xayma bi nga amee ceetlu bi ngeen tàmbulee def social boobu ba léegi ñaata milliards ngeen dugalagul si social si xayma. waa soci social bi xam nga Touba ci kanam li muy def lépp social la Touba ci kanam d'une manière générale li mu def ci dëkk bi moom ay centaine de millions la waaye social bi ci biir Touba ci kanam la nekk. waaye fi muy jógee du ci 1000 francs yi 1000 francs yi nii laaj murid di par weer lu caagi ne mooy social bi social lépp loo gis benn act bépp activité boo gis mu def ko rek doonul ne ci 1000 francs yi la ko jëlee waaye yow mi nga xam ne yow la ñu wax ne yaa ko jiite ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci commission bi ñoom ñooy wut ay relation ci misaal ma gis la eh, lu baax ñor la ma ne la nga jàpp ci social bi wala weer dee ñu ne ah weer wi dee na social baa ngi nii lu man ñiy joxe ñaar dërëm ñiy joxe dërëm ñiy joxe million ba lu man léegi nag loolu la ñuy dajale di ci toppatoo néew ci doole yi. commerçant bi. waaw waaw waaw comme noonu comme noonu lañ koy defee. léegi nag euh, man euh, laataa ma fi nekk am na ku ma fi jiitu woon ku ñuy wax sëñ Moustapha Ambar comme ni ma la ko waxee woon léegi at mu njëkk mi euh, buñ buñ ban tolloo jamono ji li defoon mooy deux cent personnes deux cent personnes yi ku ci nekk vingt cinq saak saak ceeb lañu la ak suukar ak tàndarma atum ñaareel mi ci kilifteefu sëñ Moustapha Ambar ba léegi. ñu def deux cent trente deux cent euh, trois cent trente huit famille ku ci nekk saaku ceeb vingt cinq kilos ak suukar ak tàndarma ak mille francs yu lay transporté xam nga ba léegi am na yokkute léegi nag deux mille dix neuf vingt trois mars deux mille dix man ci lañ ma def may ma yorand lii ëllëg day demaat ci keneen euh, bi man biñ ma koy jox ak ak weeru koor gi yaakaar naa euh, xam naa weer wala weer ak fan lay tollool waaye booba def nañ ak góorgóorlu ak ci mbaaxu sëriñ bi ba amoon nañ lu tolloog 500 familles 500 familles yooyu tamit ku nekk joxoon nañ la benn saako ceeb 50 kilos xam nga kon yokk na 25 cinq la léegi 50 kilos la te 238 la woon ci année bu bi weesu léegi def nañ ko 500 familles léegi kenn ku nekk 50 euh, kilos ceeb ak 5 kilos suukar euh, tàndarma ak ñaari yére yoo xam ne da nga ko mën a sol ci koré gi ak 2000 francs yu koy transporté te année bu jiitu woon 1000 euh, francs la woon kon léegi 2000 la. handicapé yi tamit ginnaaw bu ñu leen joxee loolu dañ cee boole woon 15 euh, fauteuils roulants ak ay ay loolu lañ defoon daaw xam nga daaw ñi ngi woon ci 500 familles lañ defoon daaw ren jii 1000 familles recensé nañ ko te dana ëpp 1000 familles kon nga xam ne da li ñu defoon daaw dañ ko def ñaaram. waaw daa mën naa am yàlla yàlla mën naa dogal ñu def ko waaye mi ngi aju ci rek ni bokk taalibe yi di wuyu see woote bi ndax du mbir moo xam ne dañ ko téye suñu loxo lu palpable nga xam ne dañuy wax ne mi ngi nii waaye lu ñuy laaj mbokki taalibe yi ñu ne indi ko ndax lépp ab jaayante la bu xaymaa euh, daaw jéeg social li mu defoon ci at mi yëpp euh, mooy treize millions trois cent vingt neuf mille moom la dépassé woon ci yëpp daaw bi nga xamee ne euh, jël nañ lii nii bi mi jeex biñ ko xoolee doon na trente cinq millions et quelque nga xam ne kon am dafa dafa dafa waaw ren jii tamit am nañ yéene ci ne dana ëppaat loolu lépp loolu nag du du man mi nga xam ne ni maa nekk njiit di moom moo tax déedéet ndax eh, ñi nga xam ne commission bi ba léegi kenn soppiwu ko ci Serigne Moustapha Amar mi nga xam ne ni mooy moo fi moo ci nekkoon mooy vice président eh, social eh, ci ci léegi semaine bi lañ lañ def ku ñuy wax Serigne Mbaye Cissé mu nekk vice président social waaye moo nekkoon vice président social ba léegi mi ci bureau bi du ci man du ci Serigne Mbaye Cissé du ci Serigne Moustapha Amar du ci waa commission sociale waaye ci sëñ bi la sëñ bu nekk tayam ju nekk gàccal démbam ëllëgam ju nekk gàccal gàccal gàccal gàccal gàccal gàccal tayam wa am si yun sii bi yow mi yow bi xat xultu aya mi is darat umoos yi wa fasu bil xaamoosi fil xaamoosi loolu sëñ bee ñaan borom moom mu nangul ko kon ñun moom duñ ci dara te maa ngi gën a am yaakaar ci ne jamono jii nga xam ne ni xat-xat daa am nga xam ne nii ku ci nekk ñu ci bëri ñu ngi sakkanal li ñu yor jàpp ne buñ ko dundee day jax te duñu am fuñ ko fuñ ko fuñ ko yaakaare waat man ci laa gën a amee yaakaar ci ne lañ defoon daaw li ñuy def ren moo ko yëpp incha allah xam naa dañuy yemale fii émission bi rek pour le moment kon nag euh, am na lu mbégte àndoon ak yow Serigne euh, Mame Mortalla Mbacke moom Serigne Abdou Fatah Mbacke président commission sociale bu Touba sa kanam moom la ñu àndaloon bu fekkee am looy dolli rek xam naa ñu ñëw laal yi jotaay bi. waaw li ñu ciy rek mooy euh, sant bokki taalibe bi yëpp ndax joxe moom dafa sax ci xol te joxe yombut waaye nag sëñ Tuubaa moom tàggatoon na murid yi ci joxe ba li fi am ci kaw su eh, tuub dëkk bi yëpp li ci ëpp donte waa état ñu ngi ciy jàpp waaye li ci ëpp murid yi ñoo ko defal ci seen pas-pasu bopp loolu nag day tekki ne li leen sëñ bi jàngaloon dañuy ci social itam fu nekk lañ koy waree waaye ci dëkk bi moom tumuranke wu fi ndax laata commission sociale dara di am dëkk bi moom dëkkub social la ndax kër kilifa yi ngeen gis yëpp ñi fi xeewloo ak di fa fanaan ak yu demee noonu bari na ca ñoo xam ne nii boo waxoon sëriñ ba kii kan la mun laa wax kan la kon daka jekk dëkk bi moom dëkkub social la ci jamono Cheikh Ahmad Cheikh Ahmadul Khadim ba ci suñ jamono ji ñu toll kon nag ñi ngi eh, jaajëfal mbooleem ñi nga xam ne ñi ngi dugal seen doxo ci Touba ci kanam waaye rawatina commission sociale bi eh, rawatina waa diaspora bi ndax diaspora bi jamono ji ñu toll nii eh, ñun ñoo leen gën a ndax ñun am na waxtu wu ñuy génn ak waxtu wu ñuy dugg di tàmbalee 6 heures de matin ba vingt vingt heures waaye ñoom ñu si bëri mayu ñu leen ñu génn seen i kër te jamono bii nii am na ci réew yoo xam ne nii liñ joxe ci social bii nii nga xam ne moo nekk ci xat-xat joxewuñ ko woon daaw ba nekkee ci feex kon loolu day day confirmer rek li ma la waxoon ne sëñ moom xamul jamono ju naqari ndax xol yu xol yu nangu moo gën jamono ju naat kon ñu ngi sant waa diaspora bi bu baax a baax di leen di sant waa Touba ci kanam gépp di waxaat rek ne e, liggéeyu Touba ci kanam mi ngi nii commission sociale mi ngi nii képp koo xam ne am na lu muy joxe te bëgg mu àgg ci askan wi bunt yi bari na waaye bunt bi euh, social bi benn la ci bunt yooyu kon xam naa damay joxe waat numéro yi rek numéro Orange Money bi nga xam ne mooy numéro social 77 914 26 68 bu dee ci compte bi ak kii bi xam naa xëy na dana affiché wu ci écran yi di santaan ñëpp di jégalu itam ci kàddu yi nga xam ne moom lañ doon yëkkati ndax euh, du kàddu yoo xam ne dañoo war ndax comme ni ma la ko waxee woon rek dëkk bi euh, dañu fay yilif waaye duñ duñ fi doonuñu fi kilifa kilifa nag ku doonul kilifa nag waroo di yëkkati sa kàddu ci jamono ju nekkoo la yu deme noonu waaye nag dañuy xam ne rek li tënk murit yëpp moo ñu tënk te mooy ndigal laata fanlo sayen bil xayri isni fal isni satun fii xabari sax ni kàddu yu dépp lu ci jub ñu ngi koy sant yàlla ak di ko gërëme sëriñ bi di ko gën a eh, feddali sunu jaayante ci moom lépp loo xam ne tamit dëng na ci ñu xam ne gone gu doon waxte li muy wax alimam guddul rek moo ko tax di gërëm ñëpp di sant ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jërëjëf euh, sëriñ Moutala Mbacke moom Cheikh Abdou Fatah Mbacke Falilou kon nag mbokk yi jox leen beneen ndaje si Ndindy Actu TV si yeneen jotaay jërëjëf. wajalilaay maskanitu baabaat misrak mi abijaayi xayri nabaat